bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi amin wa alihi wa saxbih wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa ilaykum mbokk yi ñu ñëwaat ci suñ jotaay bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee jottali aaya tey dañuy indi aaya boo xam ne moo ngi nekk ci suratul xujuraat te moom mooy aaya bu njëkk ci suratul xujuraat baada auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم bi bokk ci aaya yi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala si wax ak jullit ñi di leen fàttali di leen yar euh, yar bi nga xam ne moom lañu war a am seen diggante ak yonent bi saa salaam seen diggante seen borom subhaanahu wa taala soo xoolee aaya bi su jeexee uh, am beneen aaya boo xam ne itam borom bi subhaanahu wa taala si wax mu ne la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi bula la yëkkati seen kaddu si kaw kaddu ngeen di mbindeef sallallahu alayhi wa sallam uh, ñoon itam mu continue inna lazina yaxudduuna aswaatahum inda rasulillahi ba aaya jeex waaye waaye aaya bi nga xam ne moom lañu tànn moom mooy aaya bu ñu léegi te bu njëkk bi ci suratul xujuraat Euh, ngir tënkee ko rek euh, waxtaan bi bañ a dugg si yeneen aaya yi borom di si wax mu ne di wax si aaya bii nii mu ne yaa ayyuhal lazina amanu ee yéen ñi gëm euh, mu ne laa tuqaddimu bayna yaday illaahi wa rasuli bu leen jiitu yàlla ak yenentam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lan tax loolu yow danga wax ne danga gëm kon ku la chaque année dafay jébbalu waaye itam dafay dëgg dafay jébbalu waaye tam dafay dëgg bi maanaa dafay jébbalul yàlla subhanahu wa taala bi man jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira yow yàlla subhanahu wa taala moom mooy jébbalu maanaam jox nga ko sa xol jox ko sa jëmm ci lépp léegi nag loolu mooy akku yàlla subhanahu wa taala mooy ak bi nga xam ne ko soo ko joxee ku dul yàlla bokkaale nga léegi nag dangay dégg itam dangay dégg ndigal kan ngay dégg ndigalam mooy yàlla ak yeneen tam kan moo la jotali euh, digle yàlla ak yeneen tam moom mooy yéen saa salaam yéen moom moo wax ne man lii la digal moom moo lay wax ne lii la la yàlla digal subhanahu wa taala ndaxte kat moom mooy ki yàlla yónni ci ñun moo tax nag yàlla subhanahu wa taala mu ne comme que yow dangaa gëm nag amoo droit di jiitu yàlla subhaanahu wa mi la te nga jébbalu ci moom ak ngeen di mbindeef salaa salaam nga xam ne moom mooy sa yenent di sëriñ te nga war a koo déggal ay digleem ak ay terem ndaxte kat man dama kaa mu doy ma ma yónni ko kon dañ kaa war a déglu borom bi subhaanahu mu ne nag mbir mi nekkul lu yomb nekkul ni nga ko yaakaaree mu ne nag wattaqullah na nga ragal yàlla na nga ragal yàlla si ndénkaane yëpp waaye rawatina ndénkaane bii nga bañ a jiitu yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wasallam mu ne nag inna allaha samiun alim te nga xam ne nag man xam naa de te damay dégg itam maanaa yàlla subhanahu wa taala digal waaye itam mu avertir la waaye itam mu lay wan ne ma ngi lay bàyyi xel euh, maa ngi jéggalu maa ngi lay fuglu ndaxte bàyyee xel soo waxee bàyyee xel dafa mel ni kon da ngay wax ne yàlla subhaana taala dañ koy xel waaye man moom dëgg-dëgg li ma daje si waxee bor xam-xam mooy ne dañ koy melalee xam-xam kon au lieu ngay wax maa ngi yàlla mu ngi lay bàyyee xel waxal ne yàlla mu ngi lay fuglu subhaanahu wa taala ndaxte loolu inna allaha kaana ala kulli shay'in raqiba maanaam moo ngi fuglu lépp mooy contrôler lépp waaye dajewuñu fenn foo xam yàlla subhanahu wa taala dafay ne am naa xel waaye moom am na xam-xam la ñuy wax kon maanaam borom bi subhanahu wa taala ne man maa la lii mooy bul jiitu yàlla ak yeneen tam bi te na nga ragal yàlla nag si li ma la wax nii te nga xam ne ma ngi lay dégg te ma ngi lay maa ngi xam li nekk si yow aaya bi nekk aaya boo xam ne dafa lamboo ak dundu jullit bi si lépp maana sawalu diine bu si jiitu yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wasallam bul wax nangam dafa war lu dul ne danga kaa jëlee si yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi nangam dafa araam lu dul ne dañ kaa jële si yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa bul jaamoo yàlla lu dul loo jëlee si yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa bul topp benn kàddu goo xam ne dafa wuuteeg wax yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi loolu nag ak ku ko munti wax ak ku mu munti doon bul atte lu wuute ak atte yonent bi Muhammad sallallahu alayhi maanaam loolu suñu ziis yi war nañ kaa dégg xam ko bu baax a baax ko yow ziis bi ginnaaw bi nga xamee ne heure julli su jotee dangay bàyyi say lépp sa liggéey boobu nga dem wuyu ji woote yàlla subhaana taala noonu nga waroon def itam say atte atte yëpp suñu tegoo sa kanam danga war a jël atte yàlla ak yonentam sa nga atte ko jaamu yàlla yi subhaanahu wa taala loolu nekk loo xam ne lu war la si yow soo ko defut yaa ngi nekk si ay bakkaar kon na nga atte atte yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wasallam nanga nga jaamoo yàlla digle yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa na nga jiital si wax yépp wax yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax yàlla ak yonentam bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa dund yépp na si jiital digle yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam atte ak yonent bi sallallahu te nga xam ne loolu amul lenn ko luy mbokkante ak moom moo tax léeg-léeg nga gis nit koo xam ne ndeysaan macha allah fonk na seriñam bëgg na ko waaye dafay daanu bu baax a baax si aya bi mooy ne moom jàpp na ne waxi sëriñam ak waxi di bi sallallahu alayhi wasallam benn la ba nga xam ne maanaam moom tey doy na ko rek sëkk mu jàpp ne nangamu dafa war ndaxte sëriñ bi moo ko wax nangam dafa aram ndaxte sëriñ bi moo ko wax te loolu ku jàng diine ku ragal yàlla ku xam aaya bi waru koo taxawee lam moo tax ndaxte yàlla subhanahu wa bi jaam yi yépp nekkee ci kanamam mu xam leen jàkkaarloo ak ñoom dafa tànn kenn mu ne yow yow laa yónni te moom mooy ngeen mi def sallallahu alayhi kon kooku moo doy yàlla subhanahu wa taala kon su fekkente ne yow sa delluwaay maanaam am nga delluwaay bu toll boo xam ne danga kaa méngale ak yéen sallallahu alayhi xamal ne wute nga aay bi te yàlla subhanahu wa taala mu ngi lay avertir mu ne la ngay def nii ragal ci yàlla te nga xam ne maa ngi lay gis te maa ngi lay dégg te xam naa li nekk sa xol loolu moo tax loolu danger bu mag la maanaam nga méngale sa sëriñ ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye sax waxuma maanaam waxuma ñi nga xam ne moom dañuy méngale yàlla seen seen sëriñ ak yàlla ñooñu moom waxuma seen i wax waaye ki may wax mooy ki nga xam ni dafa jàpp ne waxi sëriñam ak wax yim sa sam benn la loolu amul benn mbindeef bu am loolu du Abu moo ko am du Amar ibn Xattaab moo ko am du Osman du Ali du kenn yéen sax sama ay waxam amul kenn kuñ ko méngale wala nga bokk nga gis koo xam ne masalan dafay topp benn ngir si ngir yi masalan ngirum comme ñun euh, moom mooy moom moo fa gën a siiw nga gis ne masalan moom kat xam na ne masala bii nii kat xadis def si boo xam ne bu wér la bu jóge si yéen waaye ngir. Euh, parparloo ak jiital njiram tax na mu bàyyi xadis boobu ngir topp ngirum Malik te fekk loolu dafa wuuteeg digle yàlla ak yem sallam waaye itam dafa wuuteeg sax nag digle Malik te même fekkee tey Malik da kaa digle woon sax luñ ko déglu ndaxte amul kenn kuñ koy méngale ak euh, yéen sallam waaye euh, da gis ñoo xam ne maanaam parparloo jaral na la ñu wuute ak yàlla. ak yonent bi sallallahu alayhi ngir lan ngir seen ngir loolu nekk loo xam ne musiba la nekk loo xam ne du taxawaayu jullit du taxawaayu ku ragal yàlla subhanahu wa taala du xam aaya bii ku xam aaya bii dafa war a yaru si kanamu yàlla ak yonent bi sallallahu amul kenn koo xam ne day méngale waxam ak waxim sallallahu alayhi wasallam wala atteem ak atte yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala euh, digleem ak tereem ak digle yàlla yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak seeni tere loolu moom amul kenn ko am droit boobu soo ko defee xamal ne yaa ngi nekk ko xam ne ku néew ngëm yàlla nga loolu moo tax yàlla subhaana bu muy wax dafa wax yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñii gëm yéen ñii gëm te sax nag loolu mun na laa yóbbee ba nga nekk koo xam ne da ngay si diine wala bokk nga nekk koo xam ne a ab bokkaalekat nga ndaxte soo jàppee ne masalan man ki may digal moom mooy yàlla wala im sa wala sama sëriñ teg nga sëriñ place boo xam ne amu moomul place boobu ja jagoowu ko amu si droit amu si ak loolu nag nekk loo xam ne lu jar a bàyyee xel la moo tax aaya bii euh, aaya bu njëkk bi di suratul xujuraat ak yeneen aaya yi daanaka suratul xujuraat yëpp def lay yar def lay yar dafay defar sa pas-pas defar sa jikko defar sa taxawaay waaye itam defar sa yar sa diggante ak eh, yàlla ak yonentam bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñi nga xam ne suñu dëggee wax dañuy tànn li si gën a wér li si gën a dëppoo ak wax yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jëfee ko incha allah barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi